Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf yu xamti ku ku mu tax njool booy toqi di gàtt ku weddi laajal locataires yi ci réew mi l'observateur nañu ñu bari ci ñoom seeni bailleur ñoo ngi leen di génne ubbil yéenekaay bi état d'urgence sanitaire bi taxoon président Macky Sall ne woon borom kër yi nañu baal seen locataires yi leen amel ba jëmee jamono moratoire boobee président de la république maye woon ba mu jeexee ci la jàmm mu jeex ci diggante ñi luye ak ñi leen luye maanaam ci di juróomi téeméeri assignation en référé d'expulsion ndax ñàkk a fay Momar Ndaw njiital ASCOSEN di leeral ci l'Observateur ne waa agence nationale statistique ak démographique di waa ANSD def nañu gëstu bu wane ne fii ci réew mi téeméeri locataire yoo fi jël juróom-benn fukk ak juróom-ñaari maanaam 67 pour cent ya toll nañu bés boo xam ne laata ñuy fay seen location lu nekk daj nañu ko ñeneen ñuy daj coono bu xel dajul ñoo ngi ci Les Échos mu di doomi Sénégal yi dem Italie liggéey tool yi italien ñoo ngi ne ci yéenekaay bi ne la ñu fay dund wax ci yéenekaay dana def ca tool yi fukki waxtu ak juróom-benn yu tojul minute di wëtti tamaate njamb bu noppee juróomi euro la ñu koy fay mu séddoo ko ak ko fa yóbbu te du moom rek ne am na keneen nit kuy dund lu ne mel ba di ko wax ci journal Les mu di xaali nee na moom bés bu yàlla sàkk fukki waxtu ak ñaar dana ko liggéey ca tool yi juróom-benn euro yu feg gës lëf la ñu koy fay mu jël ñaari euro yi jox ko capot maanaam parrain di ki leen wutal liggéey ba liggéey bi jëm ci financer ñaareelu phase bu PUDC journal Las xamal nañu ne kilifa yu réewum Sénégal ñoo nga ca bu baax a baax jot nañu caa dajale téeméeri milliards ak juróom fukk soleil national dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne ci ñetti téeméeri milliards yi ñu soxla ngir financer phase 2 bu PUDC genn wàll ga di téeméeri milliards ak juróom fukk ya jàppandi na waa Banque africaine de développement waa BID ak waa Fonds de soutien au développement ñoo assuré financement bi la Sénégal jëlaat wax ji wax ñu ne wax ji des na ndax ci mission boobu waa FMI Fonds monétaire international def nañu ko ci réew mi ci diggante juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñett koom-koom gu boole photo ñu ak gàll goosé ci Sénégal état bu Sénégal Pape Massata nee na dafa war a porter justice bu France mi ngi ko waxee ci Vox Populi Pape Massata Diack ne justice bu réewum France dañoo xotti war may président bu Sénégal li ñu def mu ne su ko xàmmeeg saag république bu Sénégal Pape Massata Diack ne bàyyam Lamine Diack bu waxoon àdduna bi tukki kon si yow mooy tastasar mu ne koo ne duma la topp fa ngeen jëm a sorewul léegi lu ñu fi waaye waxati ñun waa njaageen di xam ne bàkk nga njàkk man Pape Massata ma ci bàyyeeti kenn xam naa lu bari xam naa yu bari waa nañu ginnaaw bi mu sàkko ci état bu Sénégal mu topp ci yoon justice bu France Pape Massata Diack jàpp na ne classe politique gi guerre gën a sëxin ci àdduna bi mooy bu France ku wax justice sam xel dem ci magistrature magistrat yi réew meeg ñool ñool gi ñu nekkee fa ñu ci toll sonal Le Quotidien xëy na ko xibaar ñu ne kii di Souleymane Téliko président union des magistrats du Sénégal ginnaaw convoqué gi ñu ko convoqué woon ca inspection générale administration justice ñoo ngi koy xaar léegi ca kanamu conseil de discipline bu magistrature gi gi la yoon waxoon ci interview la ñu koy toppee waaye dogalu justice yu ñu ne da koo ci ay wax xam ñu wax ci tournée économique yu président Macky Sall yi la ab doxantu di promenade la ko jàppe di tournée économique yuy xeeñ politique bu baax a baax yéenekaay bi dolli ñu ci ne ca Kër Massar askan wa mu fa seeti woon ñoo nga ba léegi ca biir ndox ma mu leen bàyyi woon njaboot yu bari seenu jaaxle ku jaxasoo dafa gën yokk saafara su wér la xaar ci inondation yi Abdoulaye Mamadou Guissé président mouvement Fulak Fayda ne ñu ci xët mu njëkk bëri na ba ñëpp teg ci seen bët bëggut a démissionné Abdoulaye Mamadou gisee ne Macky ay waxam taxawul du nitu kàddu lu mu la wax lu dul Marième Faye Sall la nopp rek waxu la dëgg Dakar dem dikk wan nañu Mamadou Racine si ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la ubbil sursuwa watay Dakar dem dikk yi doon yóbbu personnel bu hôtel King Fahd ñu daan liggéey ak daan dellu seeni kër yéenekaay bi nee nañu Dakar dem dikk nangu nay watam ndax nee nañu waa hôtel commerçant ambulant bu dëkk Caaroy Azur njaayum yamba la ñu ko jàppe ñeent fukki kilo yamba ak benn lañu ñu fekk ci moom moom waa ji di marchand ambulant bi bi ñu ko jàppee ba laaj ko li muy def lu ko ci dugal li mu leen tontu moo di dañu ko wax ne njaayum yamba dafa dox moo tax mu dajale ba am ñaari million am investir ko ci yamba ji ñu ngi lay ziar ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmmi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak euh, tàmbaliwaatu liggéey euh, diggante Dakar Ziguinchor euh, bu bato bi di Jamboñ ca googu diwaanu bët Saalumu Sénégal ab diir ak taxaw ndax euh, jàngoro yi coronavirus euh, tàmbali gi tey ci talaata ji terewul euh, matuwaay jël nañu ko muy ci ndakaaru di foofee ci Ziguinchor ngir lii di xeex beeg coronavirus. wàllu xibaar bokk na ci li nga xamante ni mooy rembetuk dex gi di fleuve Sénégal ci Bakel lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñeenti hectares tool yoo xamante ni. Euh, nangu na ko ndoxam dex googee jamono yi ca Gidaaxaar département bu Dagana naka noonu euh, dex gaa fa tëradi euh, génn lalam ba juróomi metre dox diggam ak dëkk ba waral njaaxlem askan wa leneen ci xibaar ñaareelu xaaj la bu PUDC li jëmmal tàmbali gi président Sall def na ko ci kaw tukki yu mu doon amal ca diwaanu Saloum tournée bu jeex démb ci altine ji ci technique bi Abdoulaye Diop ñu tàmbalee xibaar yeeg dem ak dikk ci wàllug waax yu Sénégal diggante Dakar ak Ziguinchor bato bi di jàmbooñ eh, dina tàmbali liggéey bi talaata tey ji wutali foofu ca eh, Ziguinchor eh, nu ñu ko waxee ci njëlbeenu xibaar yi nag lu jëm ci wàllu matuwaay lépp jël nañ ko ngir wàccoo ak digley kër docteur loole bokk na ci li nga xamante ni kii di kilifa gi jiite ko sama Abdou Salam Kane dénk na ko rajo Futur Média ci weneen wàll port ab Ziguinchor responsable yëpp fa ñoom it dogg nañ ci wàcc xàccoo gi ñeel geste barrière yi ci xeex ak jàngoro yi euh, coronavirus ci fànn woowee sax dañu ci déglu commandant bu port ab Ziguinchor Mamadou Moustapha Niang ak Lamine Ba. bi ñu jotee ne xibaar bi nga xam ne wax nañ ñu ko ne bateau yi dañu war a commencé àllarba fii la ñu war a egsi talaata la ñuy ñëw départ Ziguinchor pour ñëw fii euh, port Ziguinchor ñun ñi nga xam ne ñooy autorité maritime yi fii nekk port Ziguinchor ak ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñooy bokk ci nga xam ne ci li nga xam ne ñooy sécurité ak euh, si port Ziguinchor dajaloo nañu waxtaan li ñuy dogaloo waxtaan pour yan ndogal la ñu war a jël bu nga xam ne ñi nga xam ne ñooy tukki ci gaal gi nga xam ne fii la ñuy départ Ziguinchor dinañ mën a voyager ak xel mu dal léegi nag njëkk mooy dañu wax ni kenn képp kuy dugg si port Ziguinchor da nga war a takk sama masque balaa ngay dugg si port bi aussi di rax say loxo bu mu set aussi gendarme yi dinañ leen jox ak ak ñi nga xam ne ñooy liggéey kos kosement ay thermoflash ñuy jël température képp ku nga xam ne sa température am nañ ci xel mu euh, yaakaar ne sa température ñu xool dalal la aussi dañuy xool nañ benn local boo xam ne ci la ñuy jël bu ñu amee xel mu ñaar si yow foofu lañ lay tegandi ba nga xam ne mooy euh, docteur yi ñëw seen séntu la li nga xam ne aussi mooy euh, di gaawale liggéey bi pour jëndum ticket mais yeeg euh, li ñu naan enregistrement checking bi yooyu yëpp nee nañ pour mu gaaw ba nga xam ne nit ñi duñu mën a dajaloo port Ziguinchor lépp yemm pour bato bi mën a dem comme ni mu daan demee bu njëkk avant pandémie acteurs yëpp jàpp nañ ci pour nga xam ne li nga xam ne autorité bi digal nañu ko pour ñu respecter les mesures yooyu yëpp matana fii si port Ziguinchor mu nekkoon leeral yi commandant port Ziguinchor Mamadou Moustapha Niang ci li nga ci jàmm ak salaam euh, bato bi euh, a anami xeex ak coronavirus ci àddina ak ci Sénégal wàññite koppar yi nga xamante ni collectivité territoriale yi daan nañ ko am eh, ci Sénégal loolee ne mi ko nañ ko dund ko ak jàngoroy coronavirus ci wàllu au conseil collectivité territoriale daal dina eh, ànd ak ñoom nekk seeni wet eh, ngir kon noppee ànd ci gëstu gi ci yeneen ni koppar di fonds supplémentaire lu jëm ci wàllu kon taxawu ëtt bi ëtt yooyee di collectivité territoriale njiitu réew mi président Macky protocole yi mu doon amal ci diwaanu Saloum ci wàllu woowe daal dina fa jiite am xew jëm ci lancement ñaareelu phase di xaaja PUDC programme urgence développement communautaire ngir kon may àll bi euh, ñu jot ci ay jumtukaay matuwaay it naka noonu ci diwaanu Kaolack président Sall kañ fa it euh, ñii di euh, paysan maanaam baykat yeek seenu njàmbaar ñu déglu ko président Sall ak Ibrahima Diamé. li ñu gis nag mooy yàlla def na nawet bi gàncax gi bëri na àll bi naat na bi déjà ba ñu jotee les premières prévisions ñi nga xam ne kuréel yi ko yor ci wàllu météo wane woon nañ ne ren deux mille vingt dana nekk at mu bëri ndox su nañu ne kat kon nañu waajal nawet bi ginnaaw ndox mi dana bëri nañu yokk ñulug bi daaw def nañ ñeent fukki milliards ci campagne agricole ren comme ndox mi dana bëri nañ ko yokk def ko juróom benn fukki milliards malgré covid bi donc loolu effort la yoo xam ne daanaka mosul am ci wàllu campagne agricole fi ma jeexalee tournée bi nag fii ci Kaolack mooy PUDC moom dootuma ko wax ndax ñëpp xam nañu ko programme la bu am solo lu taxoon ma créé PUDC bi may wut réew mi li dugg ci biir Sénégal li ma gisoon seetlu ko fu ne mooy boo duggee ci biir réew yi si gox yi ak gox goxaan yi lu ñu lay jooy mooy ndox foo dem lañ lay jooy mooy amuñu courant lañ lay jooy mooy yoon bu ñuy dem lañ lay jooy mooy jigéen ñi sonn nañu ci liggéey di liggéey seen loxo di wol di soq di bojj dafa ëpp ma ne dinañu fexe ba jigéen waratul jël dooleem di ko liggéeyee ngir dundal njabootam donc loolu mooy programme bi nga xam ne moo ëmb réew mi président Macky Sall démb ca diwaanu Saloum ci njeexite tournée bi mu doon amal jagleel ko wàllu mbay mi ci réew mi bët gànnaar bu Sénégal askan wu dëkkee fu mel ni Gidaaxaar akum njaaxle Gidaaxaar nga ca département bu daggana njaaxle gi li ko waral mooy dex ga euh, di fleuve Sénégal moo daal di bal wutali fa ñoom ci juróomi mètre yu dox diggante euh, loole euh, nepp dex ak seenaw dëkk moo waral seenu njaaxle ñoom waa Gidaaxaar Mamadou Diagne. ginnaaw taw yu métti yi ñu nemmeeku fii si biir département bu Dagana dex gi nar na jël dëkk bi di gi Dakar nekk benn dëkk boo xam ne mi ngi nekk si commune bu Boqal te digganteem ak Richard Toll toll si juróom-ñaari kilomètre situation bi lay jaaxal loolu kii di Jibi Jaw nekk kenn koo xam ne dafa dëkk si village bi lee moom mi la sax mi ngi yuuxu wàllu. dëkk bi yëpp ndox la surtout nag benn baat boo xam koy teg dex gi ne si à 500 mètres aussi bon boobu ba léegi nongu si ça fait deux semaines wala trois ñoo ngi si di mais bu ñu tirer deux jours rek taw bi tawaat jàpp yàqaat lépp lu ñu liggéeyoon. village bi ñu ngi def lu ñu mën mais duñ ci néew doole torop torop torop torop torop torop. mu nekk yuuxu wala yoo xam ne Jibi Jaw dafa jàpp ni autorité yi nga xam ne dañuy nekk fii si biir dëkk bi dañ leen tànqam la loolee tax ba muy sàkku ndimbal si njiitum réew mi. gisuñu nag sous préfet gisuñu préfet gisuñu keneen à part le maire te moom xam naa ne suñ commune bi amuñu doole yooyu kenn jàppaluñ si leen à part kenn kenn ku nga xam ne war na taxaw nag takku nañu ñu ngi xeex ak ndox mi daañu xeex nag ba mouvement bu ëpp nu doole jël ko mais du doon sàkku nag le président de la république Macky Sall mu gestu nu nun waa Daxaar mu gestu nun waa Daxaar soxna noonu torop torop torop torop ñu jàppale nu laata réaction gouvernement bi askan wi yeewu fii si biir gi Daxaar ñu ngi sàkku ndimbal si responsable politique yi ak waaye defal yàlla yu féete fii si biir département bi ngir ñoom ñi lay ñu mën a génn si situation bi léegi Mamadou Diagne fii si gi Daxaar ngir rajo Futurs média jërëjëf Mamadou ji Daxaar la kon ni ngeen ko déggee du ji Daxaar ji Daxaar ñu leen di ziar waa Bakel naka noonu mucc ñu ñoom yi ci tere dik fleuve bi di euh, fleuve Sénégal téeméer ak fanweer ak ñeenti hectares yi euh, suuf sunu fa bayoon la ndox ya nangu foofee fa ñoom euh, donte njiital si SICAP moom dafa gis ne daal lépp nag du kenn ku cay njàkku mooy déréglement climatique bi ci àddina Moussa Oumar gi ci jamono ji nga xam ne dañu seetlu ay coppité ci jaww ji loolu nag tax saa su dañuy gis ay mbënn ak yeneen yu ni mel tax na kii di directeur général bu SICAP di Mamadou Kassé xam ne ni fi nga xam ne moo faree bët penku Sénégal Tambacounda rawatina fi faree Bakel ak ci booru Gouloumbou dafa am ay dex yi fa yoo xam ne saa su ne mën na daal fonki ba nga xam ne dafay dugg ci biir daal di mëdd ay tool wala ay kër ci noonu nag ñu war ci mën a gën a xippi indi ci ay saafara Mamadou Kassé moom mooy directeur général bu SICAP nekk responsable APR ci Tambacounda indi jafe-jafe kay crue ak décrue yi nga xamante ne moom la ñuy am mooy yéeg ak wàcc yi nga xamante ne ni dex yi dañ koy xam ci diggante dex bi nekk Sénégal ak dex bi nekk Mali am nañ ci ñaari jafe-jafe déjà yoo xamante ne mës na am parce que gulumbu gi am mbënd moo xamante ne ni yam na yàqu-yàqu yu métti yu fi amoon te jamono jooja ministre de l'intérieur Macky moo ñëwoon fii jàppale ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu banaana bi autant OMVS comme OMVG comme SILS ay alerte te def ay suivi autant service météorologique waaye agriculture environnement ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor lakk yi ministère bi yor lépp lu nga xamante ne wàllu réseau hydrographique la ñoom ñi ngi ci liggéey bu baax a baax a baax pour teewlu yi ñu war a teewlu ak anticiper yi ñu war a anticiper pour que yooyu bañ a sonalati agriculteurs yi ak population Tambacounda commune ci jëmmi boppam dafa am daal benn yoonu ndox bu fi jaar buñ ko naan Mamakunda fekk faro bi moo ko wër ci noonu nag am ay kër yoo xam ne daal dañu tabax ci faro bi waaye itim ba tey moo jot nag ñu daal di gën a mën a gas ay yoon yoo xam ni ci biir Mamakunda bi ndox mi dana fa jaar fekk du lor askan wi ci wet gi itam ñu daal di fa ibbi ay pexe yoo xam ni danañ fa def lépp lu jëm ci wàllum mbayum dër mi ba légumes yeeg yeneen yu ñuy ittewoo ñu mën ko am fi nga xam ne moo faree ci Tambacounda Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur mi Moussa jëf ñu del si Ndakaaru dem ba an Bel daa mel ni wuyootul turuwa ak air bu neex euh, pollution la nu fay dund maanaam saxaar soo xamante ni fu ne ci jaww ja di bawoo foofee fa ñoom euh, ñu ci bari ci askanoo gis ne pexe genn gi fi lekk rek mooy di takki masque yeneen ngir daal di sàmm seen wér-gu-yaram reportage foofee ci Hann Bel-Air ak Mamadou Oumar Ba. ay tuyaux yu mag ñoo nekk ci kaw di génne saxaar ñu ngi Hann bel fu jege lool port bi fii ñëpp a gis saxaar si waaye dafa mel ni kenn bugg cee àddu. man gan laa ñu wéyal suñu yoon di wër kuy wax ci pollution bi masque bi ci kanam bi Alassane Boor yi lay liggéeyee mu nangu ni ci zone à risque la ñu nekk. comme comme comme zone bi déjà dañ ko tuddee zone industrielle a moytu la dañoo war def ay masques. masque tamit bon Covid bi moo moo fi indi mais je crois que même au delà du. de Covid les gens dañoo a continuer di protéger wu. parce que fii fii moom. Ah, y a déjà la fumée qui est là c'est là la pollution. Abdou Aziz da doon romb mu dégg lu ñuy yi yitteel ko lool mu yëkkati si kàddu yi. mooy rek ndax kenn xamul quoi. te fii ay boîte yu mag rek ñoo fi nekk. essence bi fi lay jaar gasoil bi fi lay jaar omo bi fi lay jaar. avant masque yi di ñëw lii feebar bi tax ñu indi ko mais lii dafa baax ci lu ma dama képp kuy liggéey fii ci producteur port bi. masque mooy solution bi ñëpp joxe ñu jàpp ni nit ñi dañoo war a aar seen bopp ci pollution comme ni ñuy aaree seen bopp ci coronavirus bi. Omar Ba ñu koy gërëm dem ba Ranérou Ferlo ak ndaw ña fo mere ñu ne ba fut euh, kii di njiital euh, kër docteur foofe médecin chef district ndax euh, ak cooxe gunu gis ci wàllu yorinu ko pajum askan wa foofe walal ndaw ñuy sàkku départam ñu ngi ko xamle ci ndaje taskatu xibaar yi ginnaaw ba préfet tere seenub marche Ali Bondel ñëw mbooloo mu takku la ñu woote woon ngir dëjëk taskatu xabaar yi wane li leen naqari ndaw yi bootu ci ab collectif li ñuy ñaawlu moo di ni seen médecin chef du district sanitaire bi dëkkee ak ñoom réewul lu muy nekk ci Ranérou te itam nee nañu day sàggane ñi nga xam ni dañuy tawat te yaakaar am paj ci district ba ba waral tey jii ñu boole seen bopp benn dànk di ñaax sàkku si nguur gi ñu jëlee ko fi indil leen keneen. defal traitement ñu nekk foofu di kaar médecin bi gisuñ ko ba kale bi décédé ba waa ji gaañ la doog surtout président Macky Sall ñu ngi koy ñaan ñin waa Ranérou nañ ñu jàppale surtout ñun jigéen ñi parce que kuy def échographie ñun si jigéen yi kuy def césarienne ñun si jigéen yi la problème bi si bëri ñun jigéen ñi ñoo koy daj ñu ngi ci ñaan rek nañ ñu jàppale tabas su ñëwee même su amee ñu war a jëm day am ku bëgg a am doom day am ku feebar. ci seen dajak taskatu xibaar yi ndaw Ranérou ñu si waaye itam ñu ngi ñaawlu anam bi xale yi di mànde ca gox ba nda sax du sàngara la ñuy naan waaye ay parfum yu ñu tuddee bul faale la xale yi di naan. sàngara bu ñuy jaay fii ñu xam teguñ ko fenn amuñu seen papier te sàngar bi lu yàq rek la indi fii ci dëkk bi deux mois yii rek am nañu fi ñaari gaañ-gaañ yoo xam ne sàngar moo ko waral dañoo bëgg ñun suñu jàppee fii kenn loi def pour ñeneen ñi ñu bañ ci topp tàngaar bul faale lor na waa Ranérou yàq na dëkk bi. de protestation lañu bëggoon amal ci mbedd Ranérou waaye préfet bu département bi génne arrêté interdire ko ñu mujjee ko nag yaat waxtaan bu yaatu ak teskatu xabaar yi mbir yi amee ci teewaayu ay der yi boobu gendarme mu nekkoon seen atango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam RFM. jërëjëf Ali Bandel médecin chef district sanitaire bu Ranérou euh, bi nu joxoñ ci seen i tuuma yooyu euh, ndaw ak euh, mer gi jëmee ci moom RFM Ali fexe jokkoo ak moom diggee yéenekaay gi mu def mooy euh, réaction euh, du ñàkk talaata ji mooy kon euh, lii di gis-gis yëpp boobu médecin chef ci boobu tolluwaay yi ci Ranérou RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak ñeent. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM Sonko góom la ci opposition bu Sénégal kàddu yi Mamadou Massaldi bokk ci front résistance nationale mu ngi ko yëkkatee ca Thiès ci weneen wàll mu dakkali ŋàññam mu ne moom Ousmane Sonko. Modou Massaly doon àddoo ci jamonoy euh, xew jëm ci njoxem fukk euh, ci moto pompe euh, jëm ci askan wi lu leen di waa waame ci diwaanu Thiès Mamadou Massaly ak Cheikh Anta Diop. ci doomu Thiès ma gis jafe-jafe yu suñu mbokk yi di dund Thiès muy inondation bu metti bi nga xamante ne gis nañ ko Medina Fall Kawsara Këri Kaw Ngent Sompate ak Cité Ablaye Yax ma jënd ay moto pompe ñëw jox ko administration territoriale bi suñu gouverneur bi moo ko jiite mënoon naa une forte mobilisation politique dugg fi nga xamante ne moo tax jël motopompe yi jox ko responsable yu ma neex su boobaa non seulement maa ngi nax sama bopp mais maa ngi nax ñi nga xamante ne dama jóg pour dimbali leen ma jàpp ne politique boobu dafa war a wees parce que ab réew dafa mel ni ab kër dafa am bunt moo waral ma jël jumtukaay yi jébbal ko gouverneur pour mu jox ko les sapeurs pompiers am na ñoo xam ne dañ koy utiliser pour ay positionnement politique ku mel ne Ousmane Sonko mu war a taxaw apporter des solutions que muy ŋaññi opposition bi nga xamante ne moom nee na fa la bokk loolu war naa mun a tey xel askan bi tey xel nit ñi parce que sa gannaaw moo taxawoon ne ñi nga xamante ne ñoo yore Sénégal ñu soppi vision wu Sénégal tey bëggu investisseur bu taxaw bëgg a ñëw Sénégal nga taxaw ne ancien président yooyu muy Senghor muy Abdou Diop wala Abdoulaye dañ leen war a fusiller tey nga ñëwaat di ŋaññi ñi nga xamante ne yéen a bokk kuréelu politique bi kooku war nañu xoolaat taxawaayam parce que dama jàpp ne politique war ñu koo nas si ay sos ma ne naa profité pour tontu ko xam na nag tekkaaralul yenn leaderu opposition bi du caagane dañ ko ragal wala dañoo ragal ay ñoñam fii Dóor Faye moo fi nekk wax ju ñaaw nag ñëpp a ko mën may wax Sonko nag na arrêté je suis membre du front de résistance nationale si toutefois que aussi mu yëkkatiwaat ay tuumaal teg ko si leaderu opposition bi dana xam ne lu mu yóbbante moom la jotaat tàggat yaram malal yi ñuy wax jaaj mi maa ngi lay ziar malal. maa ngi lay delloo ziar la jasal. bisimilah ñu doore ak waa Tëngéej FC di équipe bi war a euh, teewal Sénégal ci Ligue des champions atub ren ji ña nga seen wàllu euh, tàggatu doon nañ ko bés ni kon démb ngir waajal liggéey ba seen entraîneur bi nag euh, ni daal am na programme goo xam ne taxawal nañ ko ngir lépp mën a jaar ci yoon gannaaw ba ñu toogee ab diir yënguwunu Youssouf Dabo la ñuy déglu ci micro Soda Thiam. waaw bon di wax alhamdulilah di remercier aussi euh, autorités yi nga xamante ni jàpp nañ si yëpp pour euh, ñu am possibilité tàmbali liggéey bi parce que on sait tous que ni stade yi ko woon tey groupe bi ñaar lañ ko def mu am benn groupe boo xamante ni dafa dem di def euh, visite médicale dafa dem seeti docteur pour ñu càmbar seen yaram et mu am beneen boo xamante ni ñoom tey la ñu aussi ñoom ñoo nekkoon si terrain bi quoi di liggéey Eh, yàlla def na lépp si jàll na si yoon euh, alhamdulilah. waaw loolu moom jafe-jafe mënu see ñàkk parce que toogaay bi yàgg na. mais comme li may wax boobu léegi toogaay bi euh, dafa nekk situation boo xamante ni mënatuñ si dellu ginnaaw xam nga donc du ñu toog rek naan toogaay bi yàgg na toogaay bi yàgg na il faut que ñu trouver des solutions maintenant pour pour avancer si liggéey bi. leneen itam waxtaanee ko muy xale Sénégal bi di Edouard Mendy ma nga ca Düsseldorf ca Allemagne. foofa la ko waa Chelsea yemu xaatimoolub kayit yóbbu tey ji ngir càmbar yaramam ba xam ndax mën na am déet bokk ci seen équipe googa moom nag awukat bi dañ ko fa jënd ngir daal mu ñëw yokkal leen ay euh, ndëgërlaay ci seen wàllub defence ndax gis nañu ni kookee di keppaa di Koné gudduñ toll nii dóorewut fayewut Mamadou Oumar Ba Kepa ñu ngi wéy di ko critiquer ndax erreur yi muy def ki fi nekkoon góolu Bilbao at yi di toll ci ñaar fukk ak juróom kepp spécialiste yu bëri jàpp ni attanul nekk ci club bu mag ci championnat bu toll ni Premier League attanul itam statut gardien bu gën a seer ci histoire football ñaari at yi mu njëkk a def Chelsea mel ni li koy firndeel ndaxte 51 buts la jël ci 54 match saison wam bu njëkk bi ci topp 58 buts la jël ci 41 match kepp weer yi di dem chiffre di wane Kepa du ki ko Chelsea foogoon ci 33 match première League juróom-ñett yi képp la si jëlul bu Mendy moom ci ñaar fukk ñeenti match am na ci 9 clean sheet Mendy moomee 76 virgule 3 pour cent ci pourcentage arrêt la def alors que Kepa 53 virgule 5 pour cent la ci def Mendy magee Kepa ñetti at gën ko njool itam moo tax centre yu dugg ci surface am yépp 10 virgule pour cent yi Mendy arrêté na leen Kepa moom 7 virgule 6 pour cent képp la si jàpp ci contexte boobu Mendy mën a doon bu ñëwee gardien numéro un bu Chelsea. Edouard Mendy ci Angleterre gooba démb Manchester City di vice champion bi door nu seen liggéey dañu daal di tàmbali rek daan ñii di waa Wolverhampton ñetti bal si euh, benn euh, De Bruyne ak euh, Foden ak Jesus ñoom ñoo daal di kon dugal butie foofa Aston Villa tam daan waa Sheffield United ca Italie ñu jeexale foofa ñoom tam soobu nañ ci liggéey bi seen championnat bi AC Milan daa ji na dugg dugg am solo ci compétition dafa daa ji rek daan ñaari bal si dara équipe bu Bologne bi euh, Zlatan Ibrahimovic alaaji moo dugal ñaari yoon euh, te moom nag ay atam weesu na fanweer ak juróom-ñett waaye ba léegi uh-huh. euh, gone yi am ay fukki at ak juróom-ñett ay ñaar fukki yooya ku ci fereesu uh-huh. say mbokk ñëw. maanaam yaa am kattan. macha allah yax yi dëgër tubarkalla. <laughs> jërëjëf Malal ji ñuy wax Diagne Malal ñuy fàttaliku nag tey làqu ku tedd. Mm. Euh, xalif général ku lu tijaan ba woon euh, sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine. amiin ah, gis na tey la làqu woon talaata. Uh-huh. Euh, tey ji kon 22 septembre tey 22 septembre 2020. ñu ñaan rek suñu borom yokk euh, yokkaleeram yokk leeram amiin taas ñu ci barkeem. allahumma amiin laaj a woon euh, kilifa gu njaboote la woon. wallaay te amoon amoon Pastef. Uh-huh. waaw yëgoon yëgoon tam doomu aadama yi. dëgg la mooy mooy ku doon wax naan euh, kuy def looy def nga fayu kañ ngay doon ab sang. kañ ngay waaw kañ ngay doon ab sang comme nag danoo bëgg ne sang. waaw nanuy tànqamlu rek. léeg-léeg ma topp doon na may waxee ci couloir bi. ndeysaan tabarkaal jërëjëf Diagne. rajo ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi am mbégte àndaat ceeg soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi am mbégte loolu àndat ak yenn ci ab chronique culture bu bees euh, fii ci euh, RFM gis-gis bu bees mooy titre xew-xew bi nga xamante ne mooy euh, fësal ñeent fukki at yi nga xamante ne ci la Kalidou Kassé di yëngu ci wàllu aar bi mu nekk nag initiative bu tukkee ci ay ay xaritam atum 2015 bu ñu sukkandikoo ci Anta Sow Camara nekk njiital comité d'organisation bi lee xew-xew. buñ doon xaar Kalidou rek. du am parce que moom bëggul fës li mu bëgg a fësal daal mooy liggéeyam benn bés ñu toog di waxtaan li ñu calculer calculer gis ne que mu mat 35 ans ñu ne ko ah 35 ans moom foog ñu màggal ko tombé moom tamit mu nekkoon période boobu amoon inspiration mu ne justement sax fi mu nekk am naa œuvre yu bari yoo xam ne mën na mën na nekk euh, faire l'objet d'une exposition mm-hmm. c'était en 2015 35 ans yi ñu def ko musée Théodore Monod euh, ñëpp ñëpp si kontaanoon Euh, là, il nous a dit, écoutez, on va pas faire ça chaque année. On a dit, ok, pas chaque année. 2020, bi mu commencé ñu ne ka Kalidou. 40 mhm. ans mhm. <laughs> donc ñoo ko teg pression. li ko dalee kon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre gi ñu dëgmal dinañu amal ay manifestation yu bëri yu ci mel ni benn exposition euh, individuelle ci musée des civilisations noires mu nara doon nag Goulet ab euh, artiste sénégalais di fa euh, exposé. Euh, ci anam yooyu yulee depuis bu ñu inauguré euh, bërëb bi ak léegi dañ ci déglu docteur euh, El Hadj Malick nekk directeur artistique xew-xew bi anniversaire bi dañoo am benn objectif mu nekk benn défi en même temps mooy nañu présente Kalidou Kassé mu mel ni Kalidou Kassé dafa am vingt ans parce que il célèbre quarante ans de carrière mais artist du màgget donc comment Kalidou Kassé dans quelle mesure la mën a ñëwee le 27 novembre présenté ñu ay œuvres yu bees tàq yoo xam ne nag day mel ni œuvres yoo xam ne da ciy da ciy jàng expérimentale comme ni ñu koy waxee une cinquantaine d'œuvres yoo xam ni yëpp yu bees tàq la mais tamit ku xam Kalidou Kassé ku yàgg gis ay œuvres am di nga deviner nii Euh, identité am signature moo ngi ci œuvre ba léegi. mu di euh, itam anniversaire bu am solo ci euh, artiste plasticien bi di Kalidou kasse surtout nag ci lu jëm ci wàllu démarche artistique bi nga xamante ne moom la tànn. dañoo tollu moment boo xam ne àdduna bi ci boppam moo taxaw mais àdduna bu taxawee. war nañu taxawaat xool li ko taxaw loolu lan kon il faut ñu ubbiwaat suñu bës comprendre ubbiwaat seen mooy gis-gis bu bees bi mooy nan la ñuy defee ba nga xam ne tey à partir de la après Covid nan lañ ko mën a defee man par exemple période bi amee dama leen kii de opportunité la sax pour àdduna bi ndax tey on était dans nos maanaam ku nekk yaakaaroon fi nga toog lépp leer na la. gis-gisu bees bi nag du seulement ci wàllu aar bi. société bi ci bopp moo war a am gis-gis bu bees ci lépp. kon nag mbokk yi fi la ñuy yem ci euh, chronique culture bi di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. incha allah Anna Rocha jërëjëf ñu egg yéen ci Koro News ànd ak Pape Bes Diba. Covid 19 bi ak sévère gi nga xam ne nii sévère na ko bay egg ci faat nit yi benn jàngat goo xam ne bureau de prospective économique bu Sénégal ñoom ñoom ñoo ko def ñi ngi wax ne score bu Sénégal jóge na ci zéro bu tegal 93 ci 20 septembre egg ci 0,92 ci 13 septembre suñu réew Sénégal mi ngi ci. quarante-cinquième rang ci àdduna bi yépp ci Afrique nag mu ngi ci ñaar fukk ak ñaari rang bi ci Afrique googu sax ak Algérie bi nga xam ne ni moom romb na juróom fukki téeméeri junni nit yi nga xam ne ni ñoom ñoo am jàngoro feebar gi waaye Algérie gis na ni par jour ña fay am jàngoro ji mu ngi wàcc bu baax a baax bilan bi nga xam ne nii nag waa agence France Presse établir nañ ko ci altine gi wax na ne am na lu toll ci juróom-ñeenti fukki junni ak fukk yi nga xam ne nii kon ñoom ñoo faatu ci aduna bi yëpp li ko am nag doomu jàngoro coronavirus bi mu ngi ëpp fanweeri million ak benn. ci fanweer million ak benn yi nag jàpp nañ ne ñaari fukk ak benn yi ñoom jot nañu wér ca Espagne lu jege benn million ci Madrid ñoom dañ leen tëj seen i déplacement lu ñu wàññi la bu baax a baax ndax réew mi dafa bëgg wàññi bu baax a baax feebar bi nu muy lawee foofu alors que ci Royaume-Uni nag di Angleterre ñoom nag foofu autorité santé yi ñu ngi artu bu baax a baax nee nañu suñu changé wul comportement yi foofu fii weeru novembre réew mi dina egg ci jour bu ne dina ñaari téeméeri doomu aadama yu faatu ci jàngoro ji ci bilan officiel bu mbas mi war na egg ci ñaari téeméeri junni doomu aadama ci altine gi université John Hopkins ñoom ñoo ko comptabiliser jamono jile nag li faatu mu ngi ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk junni doomu aadama ci juróom-benn million ak lu tegal ci ñett yi nga xam ne ni ñoom lañu recensé ne ñoom ñoo ko am mu ëppale bu baax a baax waa Union européenne Brésil ak Inde ñu wax ci réew yi nga xam ne ni dañu am doole ñoom dañu adhéré ci dispositif bi nga xam ni waa OMS dañ ko teg ngir yombal réew yu ndóol yi ñu mën a am ñàkk bi faj coronavirus liste bi nag génne nañ ko ci altine gile commission union européenne ñoom engagé wu nañ ci ñaari fukk ak juróom ñaari réew yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci commission bi ñu ne dina